Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de des like, merci de des abonner, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé, gars, chaque fois les partager une information. Un mbokk Sénégal yi fépp fële mu ci nekk 14 régions du Sénégal à Nouvelle Cup ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lalu hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nekk ci kaso également ngeen génn fa euh, tegu ci yoonu dëgg ñi nga xam nag erreur judiciaire moo leen fa dugal wala bokk yu ni mel ñi dëddu àdduna aussi suñu borom xanaa àjjana fi daw si gay te yéexi ñu on avance ensemble dans la magie de e-sport TV l'actualité en continu dañuy waxtaan ak ki xam ne nag mooy Lothar Matthäus mi nga xam ne bu ñu ko waxee rek xel yi dem ci aussi. Bayern de Munich aussi national Mannschaft pour Allemagne l'Allemagne je li donc Bayern Sadio aussi euh, donc Romelu Lukaku ñom le gis ne ñom remplacer donc euh, Lewandowski comme je vous l'ai dit hier ki nga xam ne donc LeBron James nekk na le premier joueur en NBA en activité bu atteindre barou un milliard donc hein, ci koppar boo xam ne moom moo ko donc aujourd'hui LeBron James il a un milliard ma allah bal bi ngeen gis na gaay nak bi moy balou hein donc Ligue des Nations bi ngeen bal Ligue des Nations mo nek ni bi la gars yi di jouer ci sen compétition bu di faté rek né également Ligue des Nations africaines fimné ni ne gars aussi ah ñi ngi ci won diko diko di xol nan lañ koy mëna téggé tegee pendant ce temps aussi UEFA ñoom ne nañuy def aussi euh li nga xamné nak moy mooy finalissima aussi bu jigéen ñu koy organisé donc nak gars yi euh, tay ji gis ngeen ah démb match yi ñoo amoon nekkoon na Mozambique ak Rwanda hein Tunisie aussi dóor Guinée équatoriale 4 buts à 0 Tunisie une excellente équipe de de la Tunisie donc euh, Comores euh, Lesotho ñoo wara am tay Togo Eswatini Burkina Faso également de jouer tay pendant ce temps aussi hein lii hein, di Afrique Sport ki nga xam moy Oussem Awar hein donc dafa bëgg changer nationalité dem jël nationalité algérienne pour jouer pour Algérie loolu la wax donc loolu reste à confirmer Oussem Awar bi nga xam donc voilà il a aussi la possibilité de jouer pour la France Léo donc dem premier match titularisation avec ak nga moy donc équipe bi du Portugal mu joué dem contre l'Espagne donc Espagne bi nga xam ak Portugal dañoo mujjee tembo un but partout donc ndam demul ndam dikkul donc entre les deux euh, équipes hein. donc aussi gars yi ma wax Lothar Matthäus nek capitaine donc déjà du Bayern de Munich ancien capitaine du Bayern de Munich ancien capitaine également de l'Allemagne de la Nationalmannschaft moom nag dafa wax ci li nga xamné nak moy équipe du Bayern bi parce que aujourd'hui xam ngeen ne Bayern Sénégalais mom sen xel yëpp bu ñu Bayern nak mu dem ci Sadio Mané Lothar Matthäus aussi wax na ci li nga xamné moy aujourd'hui idée Bayern de Munich pour d'aller recruter qui dit Sadio Mané donc notamment aussi qui nga xam donc mooy Julian Nagelsmann moom nag wax le lu leer Sadio Mané mënut remplacer ki nga xam Robert Lewandowski ci lan la waxee mu leer dafa madame maanaam beaucoup bokkuñu poste et que aussi Robert Lewandowski attaquant typique là, donc moom euh, day dugal par saison 40 buts minimum donc aujourd'hui Sadio Mané n'est pas un. attaquant de pointe de métier nee na Sadio attaquant mais sur les ailes il y ailier donc aujourd'hui euh, pour nous on a remplacer nga donc le donc euh, Serge peut-être day dem ak Lewandowski nous donc euh, tu Romelu Lukaku ak Sadio Mané nena ñaar ah am Romelu Lukaku am Sadio Mané amul défense dit xamné de diga donc aujourd'hui mu ñu recruter Bayern même bu recruter Sadio Mané du jël Sadio Mané pour teg mu nekk euh, attaquant de pointe ah day jël benen attaquant parce que aussi am benen boy aussi bu wax bo xamné mi ngi ci championnat allemand yo xamné ne yenn yo xamné forcément Bayern foog mu am li nga xamné moy neuf de pointe et que Sadio Mané recrue bu baaxa baaxa baax la machallah maintenant il faut que ñu bolé ko kenn té mom ci gis-gisam donc selon également ñi nga xamné moy donc build moy que il faut que mu euh, bolé ko ak benen joueur bo xamné aujourd'hui bu fekkee né Lewandowski day dem ñom Bayern Dominique nañ mëna am équipe boo xam ne aussi c' est une équipe boo xam compétitive équipe la moom xam ne aussi c' est difficile à battre tax mu donc duo Sadio Mane Lewandowski loolu mom logique la bu fekkee ne Lewandowski day tok mok Sadio Mane ce sera exceptionnel mais sinon na bañ def lepp lu mu mën gars yi na bañ def lepp lu mu mën pour attaquant boo xam da ngay voilà day mën dougal 40 bi wala mu jege ko te nee Sadio Mane Lewandowski kii di euh, Lukaku nee ñom ñaar mental déjà ay guerrier lañ duñu bayyi aussi ce sont des techniciens gars yi aussi ils se donnent à à 1000 pour cent et que tey Bayern loolu soxla des gens qui mouillent le maillot des gens également yo xam face à toute équipe hein équipe bu mënti doon ñom dinañ mën di mën di gagner match et tout Romelu Lukaku bi nga xam ne gars ah, donc ñu ngi wax ne Inter aussi. daf ko bëgg a rapatrier yenn média ñu naan même Lukaku dafa bëgg a dellu Inter fi ne nag ñu naan waaw Chelsea moom pour mu jox leen ko il faut que mu def déjà prêt avec option ah prêt payant vingt millions ak aussi. ben 70 millions wala ben 73 millions boo xamné ne dañ ko ci tek option d'achat obligatoire bu fekkee né Inter da ko bëgg en tout cas aujourd'hui les médias comme je vous l'ai dit ñi ngi naan euh, donc Sadio Mané donc wax naa leen ko démb Matteo Moretto né na Sadio Mané ay dirigeants qui ba Bayern yi ak waa Liverpool war nañ daje bientôt pour di waxtaan en tout cas ki di donc Lothar Matthäus né na Sadio Mané ak Lukaku le gis né bu fekkee né Lewandowski day dem ñaar ñooñu équipe bu ñu té do doyal gars do doy comme on dit gars yi wéy leen di like wéy leen di abonné joxé leen seen avis également toujours un plaisir de vous servir ja again, Jeff